la Massaou, waaye tam di Massaou sénégalais ak sénégalaises yëpp ndax Fatou Kiné dafa nekkoon Fatou Kiné international à travers la télévision futur média jërëjëf sa Assane maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax baax di nuyu Pape Farar di nuyu Oustaz euh, Mor di nuyu sëñ Jili inna ilahi wa inna ilayhi rajiun ni nga ko waxee noonu la muy xibaar bu tiss bo xamanteni ni nañu fi ñu nekk di Touba euh, soxna Fatou Kiné dem nekkoon journaliste bu mag ñu yàgg liggéey moom nag ci télévision Futur Média ay at ñu xamee ko jàmbaarte bëgg liggéeyam rawatina ci domaine bi nga xamante ne ci lañ ko gën a ràññee muy wàllu santé mm. fan yi nag gëj nañ koo gis ci antenne bi muy amoon na jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ay at a ngi ni mais kenn mosu koo xam bët bu set da doon takk séeram di ñëw di liggéey si lu ko métti kenn xamu ko ndax jàmbaarte professionnalisme ak bëgg liggéeyam xëy na bi mu demee ba mun mënatu la sunu borom def mu daal di tëdd bi ni ñëw fii it ngi doon jokkoo ak moom Euh, ca fam mu nekkoon ci lalu hôpital mais muy xibaar yoo xam wax dëgg yàlla am. Mm-hmm. on est très abattu ah hein, oustaz vraiment. ñu ñàkk rek ku mel ni Fatou ne. Mm-hmm. ñàkk euh, taxaw di ko rendre hommage la mais métti na trop dis ci ñun. Mm-hmm. ndax euh, déjà au delà de TFM bi nga xamante ni moom moo ñu boole on avait des liens très personnels. Euh, ñu nag moom nga ko doon gis ci antenne beeg foo mën a gis ci njabootam. ba tax na li mu tombeek nag bis bii tey. Euh, muy euh, mën nañoo am yaakaar ci moom ndax ku ne xam ne ni moom. woy juróomu góor nga xamante ni fa la ci Tambacounda fa la fekk baax. nekkoon fa ndawal sëñ Touba bu mag a mag sëñ Jil mi mën na cee. indi seede. ku ko wax it xel dem ci njabootu sëñ Abdou Lahad Mbacke nga xamante ni ñu ngi jàkkaarloog seen kër fii. sëñ Sidi nekk fii buñ koy jàll sax sëñ Sidi mi nga xamante ni moo fi nekkal sëñ Abdou Lahad moom moom lañ koy njëkk a jaale ki nga xamante ni moom mooy soxna Fatou Kiné Deme en tout cas métti na trop. Mm. fa métti yam wante comme ni nga waxee suñu borom moom bu dogalee. Mm. jaam ñun ay jaam kese lan nangu leen mën. Mm. dogal bi nga xamante ni quand même suñu borom def na ko. en tout bu doon taxawu kese. du fi jógee. mais ni ñuy def nañ seen kéemtulaay kàttan te lii bu amee. ñun ci njëkk a rendre hommage mooy waa kër docteur. yoo xamante ni gis nañ taxawaay bu am solo yoo xamante ni ah, taxaw nañ ko fa rawatina njabootam xam naa incha allah bu ko jot gi ma mën nañ leen a cité ñoom ñëpp docteur yi nga xamante ni ñu ci doon def liggéey am solo bu ñu nak ne xel dem ci professeur Momadou Diop nga xamante tamit ku ko xam xam institut cancer bi nga xamante ni ñu ko doon fële ci hôpital uh, Aristide Le Dantec gisoon ci également taxawaay boo xamante ni ci clinique bi vie nga gis major ba fa nekkoon ak sa famille proche bi nga xamante ni gisoon nañ quand même liggéey bu am solo bi mu ci doon def ak kilifa yi nga xamante ni également ñu ngi ci groupe futur média également taxawaay bi commencé ko ba ci Youssou Ndour moom lañ koy njëkk a jaar mi nga xamante ni moom mooy le PCA ak li nga xamante ni def na ko ci ci wàllu assistance ak biraan mi nga xamante ni c' le directeur général ñoom Ndiaga ay ñoom Bouba Youssou Ndour jot sol na daalam dem ba ci fa nga xamante ne mooy ci hôpital seeti ko mu mel ni kon bu doon taxaw rek soxna si du fi jóge mais suñ borom moo ko bëggee nii muy loo xamante ni quand même c'est une très grosse perte pour euh, la profession de soxna Fat Kiné Deme ci wàllu tàggat yaram tamit dañ koy fàtte mais mu nekkoon ab athlète bu mag nekkoon yàgg a nekk championne du Sénégal ci li nga xamante moom mooy waat athlétisme li koy firndeel mooy reportage bi mujj réalisé mu ñu def ci te TFM boobu daf caa jóge rek dem dem hôpital tëdd mu ko doon jagleel benn paa boo xamante ni ancienne góorwaar la ci wàllu athlétisme yenn doog moom def ak mom mu wane passion bi nga xamante mom amone ci métier journalisme en tout cas c'est une dame bo xamante ni. ancien athlète tàkko ah, non la tudd. voilà tàkko waaw mu def ko ak mom mhm. mu ne nag ku jar rendre hommage la en tout cas bo xamante roy kay la mom li nga xamante quand même. mom mhm. moy euh, soxna fat ki Kiné dem sul xel dem ci. tout tank bi nga xamante bayina ko fii muy sëñ Cheikh Tidiane nga xamante ni da sa ndeysaan feebar bi chaque fois da doon xalat di xalat xale bi mhm. ñu ne ko sunu borom dañ koy gëm wóolu ko ba tax na daal en tout cas on est très abattu vraiment. macha difficilement mais mënut a ñàkk. Mhm. parce que Fatou Kiné moom c' est quelqu' un boo xamante ni euh, elle mérite un hommage. Mhm. Massa Chérif wax deug yalla ñun ñep ñoko ko déggandoo si déjà euh, kaddu yooyu nga xamné ne ja Dia ngeen xàmmee ko yéen ci télévision Futur Médias.